ay affaire ay Amadou Ba ay trois trois trois trois millions de parrainage ak i nangam ak sangam. Euh, soxna Maymuna te yàlla rek tax da laa wax nañ ko teg si suuf cinq pour cent sax du ko am. kan Amadou Ba. ma cinq pour cent du ko am. Hmm? dama ne nga bërki démb jógee tournée européenne bi ma yeggee pense que fan la dalee c'était à Paris. j'étais à Paris deux jours ou veille bi may ñibbisi may mën a yàlla seede na ko les Sénégalais sont fatigués mais gis da ngay gis engouement bi am autour de ta venue xam nga tey man nekkuma di sëgmu di jëmale sama ginnaaw ba war a tukki jël dix personnes dagg billet d'avion dem réservation hôtel dem gis Sénégalais waxtaan ak ñoom nangam nangam parce que damay foo wala damay ci axaan dama ne li ma lay wax nii jël ko nga noté ko. dama ne mais quand même mais quand même électoralement parlant le candidat de la majorité sortante neel mën nañ ko yóbbu deuxième tour. neel mën nañ ko dóor deuxième tour mais day day day bokk. may mun a du bokk. wax <laughs> ma ne du bokk may mun a du bokk. du bokk deuxième tour may mun a du dem deuxième tour. waxuma la ay nee la du ma seetkat. jàppal datu tey bi Amadou Ba. du am